asalaamaaleykum internet Senego yi ñu ngi leen di nuyu ginnaaw naqar ak tiis bu am fii ci kër mbay Fall ñu ngi fii nag ngir recueillir li nga xam ne mooy propos de la famille ki ñu toogal nag ci famille bi la bokk dañu koy jox nuyonteeg moom rek daal di ko masawu ci li fi jot a xew papa ñu ngi lay masawu di la ziyaar bu baax. yàlla ñu yàlla boole yool bi ñu ngi leen di fay nuyoo di leen delloo ziyaar bi ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu ko. waaw ki fi jóge de ci moom ñi fi nekk ñëpp ñenn ñi papaam la ñenn ñi magam lañu waaw. xanaa lu baax rek donc lañu xam ci moom xale la demul dikkul ndax su doon dem yaakaar naa ni kon duñ ko faata ci biir kër gi fi la toog di jàng jàngam la bëgg ak dimbali juróom xanaa yàlla moo ko nattu rek mu mu daje ko saay rek. waaye wax dëgg yàlla xamu ci moom lu dul lu baax jàng daal rek la bëgg bëggul leneen bëggul leneen moom waaw. ñi ko faatee ci kër gi est-ce que mun nga ñëw mun nga cee revenir ci biir kër gi la ci bunt bi wala dañ ko fekk si ba ci biir kër gi. waaw ci biir kër gi ko faate parce ki nga faat moom ci biir la ko jamee mais nag yàlla dafa dogal bi nga jamee ci biir kër gi tamit mu daw daanu génn ci biti daanu daawaat ba ca ne daanu ci biti la faatoo waaye ci biir kër gi lañ ko jamee. yan waaw loolu de moom def nañ ci li ñu war ñun li ñu wax moom la ñu war a def def nañ ko mooy biñ ci accès biñ ñu woowee ñu accès woo nañ sàppur sàppur bi mu ñëwee woo na police police bi mu ñëwee nag def na ci ay jéegoom biñ jógee ñu dem police police ñu ngi def seen waxtaan mais na xam nga lu lu jëm ci côté police moom dafa neexugul a wax ndax xam amaguma ci lu leer man. moo tax mënaguma ci sore. tey ba tey ci fànn boobu lan nga ñu mën a wax ci ki nga xam ne moo def jëf bu ñaaw bi est-ce que moom ki fi jógee da jot ay menaces wala it waxoon na waxam pour ngeen bàyyee ko xel. waaw man de dégg naa ñu ne mosuñu werante coow daal ba waa kër gi bokk ci te dégg naa it waa ji mosuñu dugg ci biir ci biir rek la daan moom wax nañ daal jour bi ko defee loolu la ma dugg ci biir kër gi xëy na nag. ñoom ñoo xam la tax ndax kii te ki faat tey bu doon dund lañ ko def mën na ko waxal boobam waaye comme mënu koo xëy na police buñ bu leen yàlla dimbalee lañ bëgg ñoom buñ ko amee xëy na daañ mën a daañ mën a xam daañ ca am yeneen preuve daal daañ ca am yeneen preuve waaye daal lu ma mën a wax mooy lu metti la rek lu metti la lu metti la parce que tamit nit ah ci la ñu wax bëgg naa la man damay jàng awma jot googu moom kenn waru cee mën a lor doomu aadama topp nit ki rek topp mooy ko jàmm mooy ko jàmm mu bañ li nga bëgg bañ na ko rek te njàng la bëgg moom la gëm pour man loolu kenn waru ci mën a lor doomu aadama daanaka ñun ñii di ay ay ay ay waajuram ak yooyu yëpp tane tanewuñ la si lu bari loolu moo tax mu metti ndax tamit ñëw tiim sa doom euh, ñu lor ko nga ñëw tiim ko mu tëdd ba sedd dafa metti daa metti ci ci yoo xam ne mu kenn xamul lu mu doon lu doy waar la lu doy waar la nag wax dëgg yàlla waaw man de daanaka li may wax parents yi mënatu la mënatu la parce que man bu njëkk daanaa wax naan parents nañ téye xale yi koo defal li nga war a def da koy téye waaye su fekkee léegi soo téye sa doom sa biir kër dañ koy fekk rey ko looy waxati ti yi amatul wax li may wax kay nguur gi laay waxal état ñoom ñoo ñu war a dimbali li ñu war a dimbalee mooy ñun yàlla dimbali ñoom ba ñu soxlaa ñu wateel leen ñun dañ leen a wateel ñu gañe yàlla dimbali nañ tamit ba soxlaaluñ leen dara ñoo ngi liggéey di ñëw di dundal suñu njaboot di di di buñ feebaree ñu faj leen buñ amee soxla ñu taxaw ci luñ mën kon sécurité bi ñoom ñoo ñu ci war a dimbali ndax tamit lii tamit yomb na trop benn nit jógee fële rek ñëw ci kër jàmbur rey doomu jàmbur dem yoonam loolu tamit dafa ëpp te loolu ñun mënuluñ ci suñu bopp dara parce que ñun mënuñoo fajal suñu bopp kon ñoom ñi nga xam ñoom ñoom ñoo ñu mën a fajal ñoom ñoo waroon a taxaw ci loolu. ñun lu mu métti métti métti métti li ñu mën suñu kéemtalaay kàttan ñu ngi koy def mais sécurité boobu ñoom la war sécurité boobu ñoom la war nañ ñu dimbal nañ ñu dimbal rek ngir yàlla ak yonent bi ndax lii ñun daal nañu tey doon nañ ko dégg démb ci feneen tey ñëw na ñun su su ci nguur gu jugul ëllëg day jàll day jàll feneen te su yàggee nit ñi dañ jéem a fajal seen bopp te loolu baaxul baaxul parce que yàlla moo suturaal kooku fekkuñu ko fi bi mu ko defee bu fekkul ay nit moom dana gën a yi fi dana romb fii te loolu lépp mën naa ñàkk am kon nag ba pare tamit Kër Mbaye Fall dafa yaatu ginnaaw war nañoo dimbali ñu am sapeur war nañoo dimbali ñu am benn poste police boo xam ni wala ak benn kii tamit ak benn benn hôpital ba nga xamante yenn cas yi bu amee boo ñu parce que bi ma ñëwee yem ci dem naa ba jël sama xarit otaam ànd ak moom ñëw mais amoo droit jël ko bu ñëwee ñi ma amoo droit laal kenn waru koo jël boo ko laalee boo demee hôpital duñ ko jël kon soo demee hôpital duñ ko jël ne cas urgent yi dañu war dimbali a ñu jël ko parce que nit ki nga xam ne boo ko àggee boo ko jël mu dee war na ko mën a jël ki nga xam nag peut bu ñu ñëwee mën nañoo xaar ñu faj ko wala yooyu kooku du problème waaye ki nga xamante da ngay tiim nga tiim sa doom muy sukuraat nga di ko tiim ko tiim ba mu sedd ci say loxo ñun la amoo droit laal ko lool tamit metti na loolu tamit état war nañ cee waxtaan ñu wut ci solution ñu nañ wut solution ba nga xamante ni ëllëg bu mel ni bu amee baram borom nar a loru ñu wax ñi sës si moom ñu jël ko yóbbu ko ñu ñu ñu may leen tam dem ñu jël ko urgent bu ñu paree lu ñuy wax ñu door koy wax mais bu fekkee ne ku ku li dal da ngay ñàkk tamit metti na metti na trop wax dëgg yàlla moom metti na ba fa metti yam parce que su fekkoonte ne ñun moom dafa accidenté dana metti na xale bu fekkoonte ne moom dañ ko agressé ci mbedd mi dana metti na xale la waaye li tax mu metti ba jéggi dayoo ci ñun mooy dañ ko fekk biir këram ci biir saalam da may bëgg bëgg daal maanaam bëgg moom léegi farata force la war a doon mais du noonu nit sax boo goree koo taxaw ni ko dama laa bëgg bu tawee ne la tëlumal damay jàng boo dee nit xool ko sa rak bu la ne damay jàng da nga koy bëgg a jàppale mu jàng koo yor muy doom muy rek li mu bëgg muy lu baax lu dagan jàppale ko ci soo demee ba yor xoolu rey nag man man xamatuma ban genre nit la ak ban réew lañ nekk fi loolu daal moo ci samay samay samay kàddu non dafa fekk yaayam génn dem marché moom sox nee na yaayam delloo ma bunt bi ma nelaw parce que dama sonn day door a jóge màggal loolu moo indi problème bi yaayam dafa dem marché rek ñëw fekk nit ñi ci mbedd mi ñu wër ko dana wula ci tàntam bi mu fi fekk tàntam bi dafa jóge màggal bu mu tudd doon nelaw yuuxu xale bi la dégg rek moom mu daw gis dara ji mu yuuxu waa kon mi daw ñëw mais laata ñu kii xale bi daw na dem fee daanu daanaka nii rek la demee demul leneen xam nga amatuñ ci beneen solution te daf ñuy daf daf ñuy jaxas jaxase trop fi mu toll nii daf ñuy jaxase trop duñ sax du bëgg li ci wax lu bari ndax naqar bi ñu àndal moo tax moo tax duñ ci sawaruñ sax di ci wax sawaruñ sax di ci wax wallaay parce que ba léegi jotaguñ ko pour denc ko heure bu ñu xëyee ñëw toogandoo fii nekk ci naqar xam nga néew moom fekk dencoo ko métti bi day des ci sa xol day des ci sa xol yàlla nañu yàlla boole dimbal rek jàppale ñu li mel ni daal bañ fee am te liñ ñaan autorité yi ñu defal ñu ko nag ndax it nag di di di dem ci naaju tàng di rang di wateel nit te boo paree li nga soxla dara mënu ko ci am da ngay obligé mujj toog sa bopp di liggéey sa bopp yem ci sa bopp te adduna wurta àgg foofu wurtu àgg foofu dañ ñu dimbali ci loolu rek te yàlla tax ñoo ngi jé jégalu baax a baax nag kàddu yi ñoo ngi ciy jégalu bu baax a baax comme am nañ ci ndigal rek léegi moom sañ nañ ko dañ ci am woon ndigal nag bi ngeen ñëwee yomb ak am ci ndigal alhamdulilah ñoo ci sant yàlla bu baax jërë ngeen jëf. tur bi naan. la. ban témoignage nga ñu mën a wax ci ki fi jóge waaw li si mën a wax mooy que xale bu baax la xale bu yaru la ku amoon avenir la mu ngi doon jàng ku respecté woon ay parents am la ku respecté woon dëkkandoo yi la waaw xale bu yaru daal li am moom neexul kenn vraiment. Hmm. non non non fekk ma fi hmm, non. ci message ndax bu ñu jàppee ne eh, ci bëggante la ko doon woo mu bañ mu fekk ko ba ci këram daal di ko fat tey boo ñu amee message boo xam ne da nga koy wax surtout ci jeunes yi ak situation bi fi réew mi toll. waaw message moom fi mu toll nii moom kenn mënul wax lan moo xew enquête rek ñu ko mën a wax te loolu mi ngi si loxo police mi ngi si loxo yoon mais message bi ñuy mën a bi ñuy mën a lancer jeunes yi rek nañu ànd ak seen xel jeune dafay dafay dafay déglu day da ngay da ngay déglu mag ñi di xool mag ñu baax ñi nga dëkkat di roy si ñoom mais pas di roy si leneen. boo royee ci leneen rek mooy waralal ay yi nga gis yëpp am waaw loolu daal lañ si laan nañu nañu delloowaat si xel yi te dellu tam si diine nit ki boo amee imaan yaakaar naa jullit yenn yi du ko def moo tax dañuy wax jeunes yëpp nañu saxoo di di jaamu yàlla di jàpp di julli loolu da si am solo feeg yaa ngi si loolu rek yàlla mën na laa dimbali ba seetaan du la mën ba nga def yenn yi hmm. non non xamuñu ko xamuñu ko Ablaye Mbaye mhm. waaw li ma ci wax dina diis sax pour ñu wax ko ndax Khady xale bu yaru la xale bu téye làmmiñam xale bu respecté ñëpp bañ na ko bu lay xool sax sooy waxtaan ak moom du sigi xool la kon kooku jafe na ci xale yi léegi nii kon tey ji lii buñ ko amee suñu koñ bi te mu dal ci kawam ñun ñëpp am lu ñu métti ku ne méttiwu rek da ngaa fekkewul bis bi mais képp ku fekk bis bi di nga xam ne bis bu métti la ñoo koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaree ko àjjana di ñaan yàlla nag ku def jëf ji bon ji yàlla nit niital ñu ko ba yoon teg ci loxo loolu rek la ñuy ñaan waaw parce que boobu maa ngi tëdd ak sama benn xarit ñuy waxtaan ma woo imaamu koñ bi ñuy waxtaan nii ma ko bant yi de après naa ñëw décoffrer la mu ne ma doo daw seen kër ga ba xam lu fa xew bi ma dawee ñëw si laa fekk nit ñi yeewu xadi boobu nag demagul sax mais instant yi mënuñu ko parce que il faut ñu waxaale tamit si benn affaire boo xam ne man doy na waar man xaw ma ban kii la. parce que am na nit fu muy toll pour nga xaar sa xaar sapeur ñëw parce que loolu métti na nga tiim sa raq nga tiim sa dàll ñu jam ko jëf ju métti jooju ngay. xaar uskur boo xam ne xamoo fu muy jóge ñi naan war ñu koo jël ñi loolu kenn xamatul ban pays lañ nekk loolu mooy li ñu gën a métti surtout si loolu métti nañu ba si kanam yàlla tiim sa rak ñu jam ko nga war ko mën a jël yóbbu hôpital ñu naan la waroo ko jël dañuy xaar sapeur ñëw sapeur da ngay woo ba sonn ku ne woote doo ko gis loolu métti na ba ci kanamu yàlla waroon nañ nañ xoolaat bu baax ban loi la ñu xoolaat nan la ñuy def ba nit ñi nekk si bonne condition ñu amee problème métti na trop non bi mu dawee ñu ko gis nee nañ bi mu dayee génn kër gi benn yuuxu la yuuxu yuuxuwaatul dawu si ne daanu noonu noonu lañ ci am. moom loolu mooy sama problème su fekkente ni ñu nekk assemblée nationale dañ ne askan bee tax ñu nekk fi nañu fekk xam lii problème askan bi ñu jooytu ko foofu parce que nit ñi ñoo tax ñu nekk fa loolu lañu wax ñu leen di fay ñuy wax loolu fu ñu dem di ko fa wax léegi problème am ñu ne loi moo wax ni nit bu gaañoo ñu blessé ko jam ko kenn du ko laal sapeur ñëwul sapeur nekku fi. xamuñu ban temps lay jël distance boobu mën na dee kenn amul droit jël ko yóbbu ko hôpital ñu ni boo ko yóbboo duñ ko jël lool moom bu fekkee ensemble pour ñun ñoo tax lool nan ko réviser te lijjanti ko te xam ni réglé gun suñu problème waaw man loolu mooy sama problème loolu rek mooy sama problème man jërëjëf. dañoo nekk si dëj boo xamante ni dëj bu métti la te ñaanuñu yàlla lu dul justice mu taxaw ci ndax li dafa métti benn xale bu jigéen boo xamante ni xam nga si koñ bi la dëkk suñ suñ xarit la mais xaritoo bi yëpp maanaam mbaax la ñu rek moo tax ñu xaritoo moom nit ku nit ku nit ku nit ku xam nit nit ku bëgg nit loolu lañ mën a témoigner si moom ko ni chaque jour si ndimbalu waajuram rek la nekk suba ba ngoon loolu lañ koy gisee dégg naa ñu ne si li ma dégg ñu ne faram bi musul dugg këram jour boobu la si dugg te ñun tamit loolu lañ ci am loolu noonu lañ ci am ñun justice rek lañu ñuy ñaan mu def ko te góor yàlla bi ko def tamit comme ni ma ko waxee woon rek xanaa ñu bañ a gisanteeg moom mais buñ gisanteek moom moom dina métti trop si moom barki alxuraan ñëw tamit si koñu góor yàlla ay ay góor yàlla lañ nga ñëw si koñu góor yàlla def lu la neex <laughs> nga ne loolu dina la jig barki alxuraan du jig sax mbindeef ñun tamit bàyyi koñ bi ñun ñoo ko moom te tamit ku baax ku baax laa la wax ku baax moo dem comme te ni ñun ñëpp a ko nawloo ñun ñëpp a ko bëgg bëgg bi yëpp moom moo ñu ko billaahi man yàgg nañ man ak moom depuis bi muy dugg si koñ bi man moom ñoo doon nekk fii doon foo ba magam bi sëy magam bi waaw ak yeneen yoom doo ko mën a expliquer sax